يا ربنا إن الورى تبرا لأوليائك عليك ما لي يصوم يا ربنا إن الورى تدروا لي أوليائك ما لي يصوم إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكن لنا وجه لنا لطفا وأمنا يا آه تعالى لم يكن كفنا أحد وأبلغنا المكارم ما الأخلاق ما تاب بلا سخاخ وجل سقيرنا يوقف الكبير وجل كبيرنا يعينني سخر وجل خلوبنا على تودد بلا تنصل ولا تاسد ولا تقسم ولا تدبري ولا تبقد ولا تنفري أتى نسير المسلمين خازن ومؤمنين ملزل الصالين وفي لنا وآسنا بالعافية تكون في الدارين خير آفية وآمين وهم وقفنا عن مسلما ونجي كل المسلم ومسلما وأولنا يا ربنا وسر ختام النممات وخدني يوم الخيام بجاي قيل زبا الأمراض وعد المخوض الأخراد مؤمر من الأمام أعلم بالأمراض والأثاري وصلي الألي ثم صلي ما والي ما ساب الكرماء ما أولى المسخول بدعائه في المريض بالصفاء ولناسني aidan sabda Allah sifaa wa faida ya man yara mudafa kulli da'i fala tufariq man lam sifai wa dum alif masaya sabba wa akhlisan kana sifaa wa fala bin rabbina ci barke musawa sala ali rabbuna kama sawa masha allah <laughs> ya naa fnek di oustaz mu ngi ne tekk nag di déglu moom xam na fi waxee <laughs> waaw nee ko jàng rek wóor acca mi ngi noonu bañ ma wax del jàng may daw waaw yem si xos daa rek daw dëppaat <laughs> mi ngi noonu laa ko rëcc tey acca mi ngi noonu waaye ñu koy kontaan bu baax Serigne Xaban euh, di kontaan nag ci teew bi nga teew suñu plateau ah, kon euh, Serigne Xaban euh, ñu gis nag yaa nga fële ca yi waaye nag yaa ngi Sénégal macha allah nekk nii yan projet ngay xaar ñoo leen xaar kon ci kanam waaw ah, jërëjëf sëñ Bathie Massamba ah, projet yi moom mooy ñaan yàlla yàlla gën ñoo xir ñi xas yi ñu nekk rek mhm. sa jigéen avancé dañ ki moom boo nekkee ci lu baax yàlla dimbali ci da war a gën a góorgóorlu rek mhm. ngir affaire yi gën a avancé ñu sàkku ñaan ci yéen ñëpp nag mhm. ndax ñu moom suñu suñu suñu bëgg-bëgg lii da tagg Seydina Muhammad guddeeg ba tey nag moo ngi ciy dox waaw di fexe népp lu mu man lu mu man rek ba mu gën a avancé ñu ñu ñu góorgóorlu ci mm-hmm. ñoo ci programme bi di dem ko dëkk macha allah. Mm-hmm. korité beeg fi mu ne xam naa bu lu paase tey moom. Mm-hmm. ci fan yi ci topp nekk ci bagage yeeg yooyu. <laughs> <laughs> waaw nekk ci xel bi di <laughs> di waaw. waaw noonu daal lañ ko bëgg a doxalee rek. waaw am naa am naa am naa am na am na ma jotoon def sax na am naa waaw am na ma jot def waaye waaye waaye waaye waaye waaye fi mu toll am na yu bari yu may dajale yoo xam ni dama bëgg mu daal di kii ñu daal di jublu ci rek incha allah rabbi bi yu weesoo rek incha allah ah, ah non non am na bu ma génnee am na booy bu ma jot a génn a génn sax waaw maa ngi ci doon roy sax suñu mm. benn magum jànkat mi bàyyi bàyyi ndongo caam mm. moom moom laa ci kii mm. waaye am na yeneen yu waajal ay maam jaare yu bees yu war a jàngat mm-hmm. yëpp daal di nuyu incha allah su ko defee rek ma jox comme Diop mhm. jox euh, sëriñ Xaban ak sëriñ Góor rek ñu daal di duyoo. Mhm. ñoom daal koy tàggoor. su ko defee ñu a a tàggoo. sëñ euh, euh, <laughs> mhm. jox leen kon rek ñu daal di barkeeluwaat ba mu gën a neex rek incha allah ñu daal koy Euh, joxe kon kàddu gu mujj tay bañ bañ dellusiwaat incha allah. mam jaara way la def di bor yow fay la fay la bor war la ekite ñu diine jaara way la def di bor yow fay fay la fay la bor war la ekite mam jaara soxna jaara way tëb di bor yow fay la fay la bor lu war la ki teewe ñu diine maam jaara way la magaleel maam jaara tu la lu war la ki teewe maam jaara bu xëyee ma ngay raamal ab sangam yor bu kaamil jàng mel ni waa jaamal moo ko may ku nuy raamal wayla na mi lor yow fayla fayla warla kiteel mam jaara poroxaan bu yegsee ñepp daw di la wuy ji jaara jar na wuy jigéenu Garnier bu yegsee ñepp new wuy ji leen mam jaara jalaw yépp ci fallu laay wéyanto fallu laay doxanto man ñi ma ba may reer bay Seex Karim yaa fallu laay xaranto ñi ma ba may yéen dañ leen war a ñaanal parce que li ngeen def da am solo lool waaw nit ñuy def mm-hmm. Euh, dañuy bëgg di génn léegi nag ñi lay woo da lay génne mhm. mënu leen fa yaan yàlla dundal seen kàttan dégg nañ baax di ñaanal xalifa diine yëpp mhm. ñaan sëñ Muntaxa yàlla yàggal ko fi boo leen kilifa yi nekk ci réew mi yëpp mhm. ak sëñ Tuubaa xasaay bi baax daal dinañ ñaan yàlla gën leen kàttanal ba fu ngeen bëgg télé bi yegg fa rek su borom yegg fu kawe suñu jot waaw waaw waaw numéro bi 77 la 287 63 19 287 63 19 mooy mooy numéro five years.